teel waajal tabaski ak ren herbepis waaw sama gars yi pak tabaski bi yegsi na ci njëg bu xéwalee au lieu de 9430 yaa ngi koy amee 8500 osez le bon goût du naturel. comme waa Alphie Cuisine euh, nuy naa leen ziyaar naa leen sama gars yi waaw ñëwaat naa dikkati naa dikkati naa maak euh, ren herbepis waaw yéen nag yéen a ñëwagul sama gars yi. waaw bës leen ci sabonné bi bës leen ci sabonné bi like et puis notification yi di dugg ngeen mën a gis vidéo yi waaw di mën a. Euh, seetaan wàccaay tabaski bi ak Reen Herbes Épices sama gars yëngatoogu leen de déedéet <laughs> yëngatoogu leen de wala ma bàyyi bokk ah. épaule waaw épaule dañoo bokk nañ ci parti yi gisoon bi ñuy euh, wane di composé euh, xar bi yëpp toujours ak Reen Herbes di leen fàttali que ni pack bi léegi mat na sëkk. bu ngeen wootee ci numéro téléphone yi wala bu ngeen doxantoo ba Elidia Elidia Cissesse wala Elidia Touba wala ngeen dem Petite Foire de Dakar premier 2 ak 3 juillet di ngeen fa fekk lépp luy Reen Herbépistes pour mën a def seen achat directement sinon même numéro téléphone bi ngeen woote ñu livrer leen waaw léegi euh, tey dama dem euh, ci sama boucher bi mu defal ma épaule d'agneau daf ko désossé léegi bu ma expliqué nii léegi présentation bi dinaa leen wan naka la désossé li nga xamante ni mooy euh, épaule d'agneau bi dama koy farcir nag Euh, lem ko ci biir ak euh, crépine daño bi lii mooy graisse bi nga xamante ni en général moom la ñuy récupérer ci biiru xar bi waaw moom laay jël enveloppe ko fii euh, ñu def ko saaf ko tuuti ci poêle bi ba mu dooree dugal ko ci fuur bi nag bàyyi ko mu retiwu daal di mijoter ñor xomm daal comme fromage la jambon ak champignon moom laa bëgg wal fii ba mu mokk waaw moom laa bëgg dëbb fii ba mu mokk ñu sàppali sunu euh, épaule d'agneau tarkalla la di ko ci euh, farcir lem ko jël sunu fil alimentaire laxas ko ci taq ko ba mu dëgër. waa mi ngoog mi ngoog sama gars yi waajaa ngi koy désossé de waaw moom daal ñoom seen étape lañu am ñoom donc comme épaule dafa am mooy yax bu xaw a plate boobu moom lay njëkk dindi nii waaw luqati ndawal bi ba mu set waaw mu xëcc mi ngoog bu xëccee da koy da koy topp. voilà léegi bu détaché euh, première partie bi ba pare daal di jël deuxième bi nga xamante ni foofu tam am naa demee ne yax bu def euh, forme L waaw boobu tamit dafay dafay génnee rek euh, ci côté yi dégager ndawal bi ba pare isoler yax bi voilà gis nga génnee ko njëkk détaché tourner ko wàccee ndawal bi nekk si ginnaaw et puis génnee première première yax bi voilà yax yi en général ci diggante bi am na toujours parti boo xamante ne mooy yoon bi da ngay yoon bi rek waaw boo toppee yoon bi détaché et puis génnewaat euh, troisième état bu yax bi et puis mu jeex. voilà euh, boo amee patience moom di nga ko mën a defaral sa bopp mais boo ko mënul defar fi ngay jinnee mën nga wax euh, boucher bi mu désossé la même Sénégal ah, am na boucher yoo xamante ni boo fa jinnee rek. da nga da nga leen di wax ñu dindi la yax bi et ñu jaay la viande sans os. léegi avant ñuy jàll ci montage bi nañu mixé jambon bi fromage bi ak champignon bi ñu def léegi ci blender bi. li nga xamante ni mooy euh, crépine bi euh, sunu potu nokkos yi nga xamante ni marinade royale yi ñu fi defaroon voilà nga di tourner vidéo tamit layaa nekk ci boor bële nga war a gérer vidéo bi war a ci boolewaale layaa mais yàlla baax na léegi xorom rek laa def bu ma defee xorom ñu daal di jël sunu euh, marinade voilà def ko ci bu baax sàppali ko avant ñu koy ñu koy farcir te ku nekk di nga ko mën a reprendre sa kër voilà léegi dañuy jël crépine bi mooy graisse bi nga xamante ni voilà man dama ko yàgg bëgg di ko utiliser ci recette yi dama dem di jënd rek fekk tombe ko fi parce que dafay gaaw a jeex. ayca mu nu mu jëlee forme bi rek nga xamante ni dinañ ko mën a dinañ ko mën a enrouler mi ngoog xam nga tabaski moom en en général dooy bëgg di di di di di rajouter ay. ay ingrédients voilà di rajouter ay ay affaire daal ci ci ndawal bi mais nag dañ dafa am avant tabaski ak après tabaski voilà recettes yi du forcement recettes yu ñuy utiliser yu ñuy rek euh, euh, def ci tabaski bi mais après tabaski tamit mën nañu reprendre même recette yi nga xamante ni moom ngeen di gis nii ci Alphie Cuisine voilà euh, mu nekk ay recette de fête yoo xamante ni vraiment bëgg naa ngeen ngeen reprendre ko xam li muy saf daal waaw kay léegi nii lañ koy lemee voilà voilà léegi xaw ma ndax yéen a ngi gis fil fil alimentaire bi moom laa jël jaarale ko fii ci suuf après day ñëwaat nii ci ngok ni nga xamante ne moom la ñuy taqee en général rôti yi nga xam ne dañ koy gis ñu tax mi ngok léegi ma jëlaat beneen buum ñëw fii voilà su ma ñëwee fii fii nii fas voilà léegi nag bu ma paree nii rek laay def di ko wër di ko wëndeel nii lay def voilà mu jaar fi ma daal di tourné dugalaat ko nii ci suuf voilà taqaat voilà tour bi laa koy terminé su Soukay Fall moom mi ngi ci moom Soukay Soukay Fall ak Atia Sow Atia saw sama doom sama soppe voilà ñoom ñi ngi ci Alphie Cuisine voilà résultat bi léegi lii lay joxe résultat bi nii lay joxe voilà voilà léegi mi ngoog nañ ko may tuuti épice su viande voilà ni mu ànd ci couleur nga xamante ne waaye ci sama gars yi léegi euh, def naa sama épice su viande moom laa def nii ci kaw pour mu àndil ma dorure voilà léegi nag dañ koy dugal ci fuur bi waaw nañ ko def ci four bi laal naa ci tuuti soble nga xam ne après damay am benn fond de viande bu bu bu neex moom la ñuy lekkee épaule farcie bi voilà léegi nañ ko def ci four bi bàyyi ko fa mu ñor xom sama gars voilà ñu daal di ñëwaat léegi xool lan lañ koy accompagner am naa fi ay rocheti waaw nañ ko bàyyi nii ci fuur bi euh, deux quinze degré laa ko def voilà voilà dugalaale naa ay rocheti comme ça mu ñoraaleeg moom voilà nañ bàyyi suñu épaule dañu bi nga xamante ne moom lañu ñu farcir mu ñor tranquillement waaw jox ñu li ñu soxla mi ngoog sama gars bu ñuy fàtte di ko tourner nag voilà tournée bi daf ciy am daf ciy am solo crépine bi mu ngi ciy def xet bu neex a neex a neex. waa mi ngoog sama gars yi plus muy ñor plus euh, muy muy euh, warasu voilà plus muy rétrécir plus jus bi di génn waaw ñu koy arrosé nii mi ngoog ok yii nii daf ciy baax parce que dafay nooyal dafay nooyal euh, épaule daño bi waaw léegi mën nañ ko tourné waat nag comme tourné woon nañ ko sànq waaw nañ ko tourné waat ah di ko roose nii ko arrosé bu baax saa yëf yi dugg guu bi dugg ci biir maa la wax lii léegi dindi euh, wëñ bi rek moo ci des donc gis nga crépine bi crépine baa ngi nii dafay def benn couche boo xamante ni garab bi yëpp wàcc na donc benn coup bu neex lay def ci ci ci ndawal bi soos bi laa def fii dolli ci tuuti maïzena pour mu épaissir donc mon la ñuy def na li ci coupé li waaw mi ngoog mi ngoog sama gars yi ca jàll ci dégustation bi damoo des waaw jus bi sedd na rucc yaa ngi tege et puis sunu épaule dañu ñor na xomb voilà laal mu topp la mi ngoog voilà cuisson fondante lañ ko def toujours ak Reen Herbes Épices on te donne rendez-vous demain sama gars yi bu leen fàttee épices yi léegi tout est disponible da ngeen di dugg def seen ay achat bu fekkee ci sous région bi ngeen nekk seen point de retrait bu fekkee Europe ngeen nekk site internet bi waa Dakar dem Elidia Touba wala Elidia Cissés wala ñu woote ci numéro téléphone yi di affiché wu jaajëfal naa leen sama gars yi à demain incha allah. spécial waajal tabaski ak ren herbepis waaw sama gars yi pak tabaski bi yegsi na ci njëg bu xéwalee au lieu de 9430 yaa ngi koy amee 8500 osez le bon goût du naturel.